xew na ci réew mi dañu koy ñëw ànd ko kenn tey nag xew-xew bi fi ñu nekk ñu ngi fii nga xam ne mooy Kër Mbay Fall xew-xew bu doy waar bu fi am boo xamante ne ñaari xale yu ñuy wax ñoom ñëpp Cheikh Ibra ñoom ñak xale yi nag dañoo réeroon bi ñu réeree lu mat ñeenti fan jàpp juróomeelu fan bi si lañ leen gis waaye ni leen gisee moom moo neexul seen ay mbokk ndax li ñu force wéewu nekk loo xamante ne lu doy waar lool lool moo wal tax émission xew-xew tey ñëw fas yéene ànd ak mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi bu ko defee ñu wax ñu seen doom yooyu nan la ñu réere ak bi ñu réeree tam nan la feeñe ba nga xamante ne jéyee ji nga xam ne moo si mujj am mu nekk lu doy waar defee Pape danga may topp ah tey Pape laa àndal bu ko defee ñu daal si biir kër gi xool li nga xamante ne moom la mbokk yi dund waaye boobu ñu ngi ànd ak koo xamante ne nii moom kenn si membre famille la sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw xew-xew bi am fii si nga xamante ne mooy seen koñ euh, di euh, fi nga xamante ne moom mooy Kër mbay Fall boo ñu doon expliqué nan la demee si ñaari xale yooyu nga xam ne ñoom ñoo réer. waaw mu nekk loo xamante ni maam lu doy waar lu doy waar tax lu yéeme ndax xale yëpp sama kenn gi sama jarbaat la mais kenn gi sama doom sama doom la xale yi ñu ngi réer depuis jeudi pa jeudi pas jeudi le 4 janvier wala xale yi réer mais war nañ leen fépp war nañ leen fépp seet leen fépp télé yeeg fépp war nañ leen fépp rajo yëpp war fu ne mais dépp boobu mënuñu leen mënuñu leen gis parce que si mais ma xool samedi dama naa jeudi démb démb démb démb xam barki démb si lañ leen si wàll démb barki barki démb si nga si suba la ñu xëy laa xëy laa xëy dem ci benn paa bu ñu ma yabaloon ma dem fa di si seetlu di seetlu affaire yi ba ma demee fa ma toog di wax ak moom fa lañ ma woo téléphone ne ma xale yi lii leen gis nañ oto ci la ci koñ bi wala oto bi fii ci koñ tout lépp ci benn koñ bi la mooy fi ñu taxaw nii fi la jëyee ji amee nii fi oto bi nekk waaw fi ñu taxaw nii oto bi nekk fi lañ leen gis nañ leen fekk fekk noonu mu nekk lu doy waar xale bi nan la ñu nekkee ci oto bi pendant cinq jours yi ngeen di wër gisu leen ne nan leen def gis xale yi doy na waar parce que dañ parce que dafa am ku doon dafa am ku doon oto dégg buru ci oto bi dégg bruit si oto bi waaw ci maanaam huitième jour bi si lay dégg si lañ soog a dégg bruit bi nañ ci oto bi xam nga loolu xel nangu ko vraiment mu doon. léegi nan ngeen fekkee xale yi. non xale yi kenn gi moom dañoo fekk dañoo fekk mu gaañu tànk kenn dañoo fekk mu gaañu ci tànk bi ci tànk bi sonn trop ak moom muy hôpital mhm. waaw moom moom muy hôpital ba léegi mais keneen ki mais keneen keneen moom dañoo fekk bi nii mu gaañu ci mhm. moom bu ne xale bi ñu defal te mujjee décédé mhm. moom dañoo fekk bopp bi moom xaw a benn gaañu gaañu bu si nekk. mu nekk mbir mu doy waar mbir mu xel mu tal nangu tax waaw lu doy waar. mu nekk lu louche parce que euh, ñu ngi dégg ne am na si ñoo xam ne am na koo xam ne fekkewuñ ko ak ay bëtam genre yooyu maa ngi koy dégg si ay rumeur est-ce que loolu am non si loolu ma parce que man mi découvrir naa la découvrir naa lool parce que ay bëtam ba léegi nii gisuñu ko ah. ba léegi nii may wax yow gis ma ko gis ma ko bokk parce que gis naa parce que léegi nii bokk naa si ñi nga xamante ne maanaam maa ko dugal si pax léegi léegi nii waroon nañ ko léegi nii léegi nii yow bi nga ko tiimee kon moom amul dañu loxati bëti xale bi. gisuma si ay bët. kon gisuma si ay bët waaw kon. néew bi amul bët. amul bët ok na la demee gisuma ko gis gisuma ko si waaw. léegi yéen seen xel dafa am lu mu njort parce que loolu dafa xaw a louche xale yu réer ñeenti fan juróomi fan ñu gis leen si même oto bi nga xamante ne si seen koñ la nekk ñeenti fan yëpp ngeen doon wër xale yi nekk ñu woon si koñ bi lu waral tax gisuñu leen woon ba juróomeelu fan lañ leen gis kenn ki ñu gis ko mu ñàkk bakkanam ñu ne amul ay bëtam keneen ki ñu ne tànkam mu nekk ay mbiri doy waar non nekk na nekk na loo xamante ni maanaam doy na waar daal wax dëgg fa yàlla doy na waar mun ñu wax lépp tamit mu ñu wax lépp mun ñu wax lépp mais doy na waar trop wax dëgg. yow lan nga ci xale yi. man maay seen nijaay. kenn ki nijaay laa ci moom kenn ki papa laa moom. d'accord kenn ñoom nu ñu tudd nee ñoom ñaar yëpp Cheikh Ibrahima lañu tudd. kii Ibrahima jël tudd kii Ibrahima Fall. oto bi nga xam ne si la ñu fekkoon xale yi oto bi kan moo ko moom. oto bi benn dëkkandoo moo moom si bi fii la nekk moom bi mu gisee bi ñu gisee xale yi si oto bi bi ñu ko woowee pour mu ñëw ubbi lan la wax. non fekkuñu ko fi moom fekk moom fekkuma fi parce que man bi ñu tijji oto bi man fekkuma fi damaa génnoon. nekk lu métti mu nekk lu doy waar léegi nañu xuus ànd ak yow dem sa kër ga. waaw baax waaw nañ leen dem. voilà gis ngeen ko mbokk yi fi ñu taxaw fii la xew-xew bi amee euh, ne Dia ak Fall ñoom ñëpp ñàkk euh, kenn ki ñàkk bakkanam euh, si anam bu doy boo xamante ne nee nañ léegi bi ñu koy rob sax fekkuñu ay bët si moom mu nekk rek loo xamante ne lu louche la loolu la famille bi nañ dem si biir kër ga xool ji ba ñu jugee fi nga xamante ne fa la xew-xew bi amee foofu si place bi ñu taxawoon sànq mu si forêt boobu nga xam ne fa la fekk xale yooyu nga xamante ne kenn ki ñàkk bakkanam tey jii sax di sarax si ñëw nag fi nga xam ne mooy kër gi si sarax si fas yéene ànd ak mbokk yeeg yaay yeeg xarit yi ñoom tam ñu wax nan lañu dundee seen xew-xew boobu dal si seen askan te senegal yëpp nag jooyal leen ko ndax lu mu doon loo xam te lu metti loolu euh, booy ñu ñoo leen di fay tur bi la Ngoti Ndiaye ñu ñëw tey gannaaw xew bi nga xamante ne Sénégal yëpp dañ ko bokk ak yow bi ñu ko yégee mu nekk lu metti lool boo ñu doon wax sa doom yooyu nga xamante ne kenn ki dafa réer ñoom ñaar ñëpp ñu àndoon réer noo ko yégee metti def metti jam def na ko métti dafa métti jam waaw métti na trop sax daa réer rek alxames ah, da la fi jóge ci ngoon 6 heures réer ñu war ko fi yëpp war bay bëgg dee gisuñu ko fu ne wër nañ fa fu ne dem nañ fa gisuñu ko ndax dañoo jékki-jékki rek dégg na gis nañ ko ci benn oto loolu lañ ci am. ñoom dañu réer lu mat juróomi fan. juróomi fan laam am juróomi juróomi muy nekk juróomi fan ci lañ ci ay une heure juróomi fan bi ci une yi lañ feeñ. mu réer lu mat juróomi fan lépp si koñ bi la wala fi ñu fo fi ñu nekkoon ak fi si koñ bi dafa soriyaantoo. fi ñu leen gisee ak koñ bi sorewul yëpp si benn koñ bi la. lu tax juróomi fan yëpp gis ñu gis ñu nekk si oto bi yéen waa koñ bi mënu leen fexe ba xalaat ne côté yooyu lañ nekk. oto jàmbur bu ñu ba baas tax ko baase ko doo foog ni xale yi ci te sama jëkkër côté yëpp egg na ma foofu côté yëpp xool na ko oto jàmbur bu ñu baas tax oto baas te ko takk ko kenn du yaakaar ay xale yi ngi si kenn yaakaaru ko woon. noonu la demee. ñoom nan lañ def ba dugg ci oto bi nga xam ne dañ ko bâché dañ doon foo daw dugg ci wala nu mu demee ba moom ñoom xale yi nekk ci biir oto bi. buñ ko xaman kay xanaa jëli leen buñ xamal nuñ def bu nekk ci oto ba ñu jëli leen ñun xamal ñu leen ci oto ba de ñun daal dañ dégg nañ ci am. oto bi kan moo ko moom. oto bi leen su oto benn dëkkandoo la. maanaam dafa tombé juróomi fan yëpp mu gaare oto bi dafa nekkoon oto bu yàqu. ah wóoruma de oto bi daal man gisuma ko dégg maa dégg rek. oto bi yàqowul oto bu bees la oto bu baax la ah oto bu bees la benn pneu bi daal la ñu wekk benn pneu bi daal la ñu wekk 4x4 la xaw ma du 4x4 4 la ma ne gisuma ko ba tey oto bi oto bu yàqu oto bu bees la ñoo wekk benn pneu bi rek. mu nekk lu métti parce bu fekkee juróomi fan yëpp dañu nekk foofu si biir oto bi day doon loo xam ne doy waar la te yéen yéen a ngi doon wër. Ah, metti na de loolu kay passé na metti metti na de xam xale yi def metti na daal xam nga juróomi fan yi la ñu nekkoon xam nga dañu fee dugal daal waaye metti na ñun loolu lañ ci am daal juróomi fan def nañ ko kenn ki ñàkk bakkanam muy sama doom bi keneen kaa nga hôpital sonn ba dee. sa ñu ne dañu ko fekkee dañ ko fekkee si benn anam bu doy waar. ah wala dégg de da laa dégg xaw ma nag ñun laa dégg de ñooñu daal kenn ki moom kenn ki xam ba di lañ dindi xaw ma daal sama doom bi waaw bopp bi tamit dégg na am na fu ci dagg waaye ma de gis na maa dégg rek nit ñi di ko wax. léegi ma ko waxoon ba léegi gisuma ko ak bët alxames laa ko gën a teg bët alxames ci 6 heures laa gën a gis sama doom. bi muy dem lan la solo. yére bu xonk am ak col noir blanc ak benn culotte bu culotte bu gàtt def bleu blanc. muy feeñ tamit. la li mu soloon da sol waaye keneen ki moom solut yére waaye sama doom moom yére yi mu soloon sol na ko mi ngi woon ci moom. sa doom moo tuddoon lan. Cheikh Ibra Fall Ibra Fall. Ibra Fall ñeenti at ak genn wàll. lan moo la gën a marqué woon si moom. xale bu ma xale bu ma yërëmoon la xale bu ma yërëmoon bëgg ma bay bëgg a dee takk ma nag daawul dem fenn fu mu jooyee dag ñëw na ci man chaque jour sama kaw gi lay nelawee takk ma bay bëgg a dee yërëm ma wu ne ñu rek mu ne ma yaay du lay méttaa sa loxo ma ñaanal la dëgg xale bu teel a kii kay yërëmoon na ma bëggoon na ma takk ma waaw waaw kon bi amul ko ba ñëpp ko bëgg dëkk bi yëpp li naqari na leen naqari na leen torop torop Ibra moom ñëpp ko bëgg. ban yëg-yëg nga am en tant que waajur. Ah, metti rek metti kay ni waajur yëpp comme jàmbur ñu koy kii sax a metti sax xatuma ki ko jur dëkk bi yëpp la metti dëkk bi yëpp metti na leen gis ma comme mettiwul ñun ñi nga xam ne ay borom xale maa ngi jaboot macha allah maa ngi juróom-ñaari doom sonn bay bëgg a dee bi xam nag mooy loolu fi ñu nekk metti bay bëgg a dee temps sama doom bu la dal ci kawam ñu nekk ci ay problème yi dañ yokk su ñun am nga ne metti na. bon man dama génnoon doon dem euh, Tivaouane pour euh, dem yóbbu ñaari yére xale yi fag am benn euh, sama benn waaju ma waxaloon mu ne xam na koo xamante ni bu ñu ko joxee ñaari yére yi dinañu mën a wax xale bi fan xale yi fan lañ nekk ak la moo leen dal donc jour boobu nag bi may dem Tivaouane pour yóbbu yére yi lañ ma sama yaay woo ne ma malheureusement trouvé nañ xale yi mais kenn ki sans vie quoi keneen ki nag gravement malade yóbbu nañ ko urgence donc noonu la demee ma daa def demi tour daal di ñëw fii mu nekk lu metti aussi lu kenn xalaatu woon parce que gis nañ fi ay xale yu réer ba tàyyi mais à la fin par la suite ñu feeñ mais bi li ci doy waar mooy man yaakaaruma réer la daal mais mais xaw daal mais moom la nit ci suspicion mais en fait boo koy xool mu demee mënut a nekk réer soit dañ leen a jàpp euh, jël leen parce que benn xale bi ñu koy trouver amul benn yëre bu nekk si moom donc loolu c'est c'est un peu suspicieux quoi li ci des encore euh, mooy beneen xale bi. yaram bi am na lu ci bopp bi toj na euh, bon bët yi man gis naa ko personnellement euh, si situation condition yu yu yu yu daal mënoo comprendre nit na lu mën a defee xale bu ndaw euh, yenn métti daal mais vraiment ñëpp dañuy wax masta rek mais vraiment situation bu doy waar daal donc nañ ñaan yàlla yoon def liggéeyam te trouver ki nga xamante ni moom moo moom moo jëf-jëf ci daal waaw xale yi ay innocent lañ defuñu dara. Euh, Sénégal gis nga situation yu dund fii déjà c'est la précarité euh, ba pare naqar yi ñëw di teg seen kaw tamit vraiment lu doy waar la mais euh, parce que ni nga ko expliqué mu nekk loo xam ne lu doy waar la ndax ay xale bu ñu réeree juróomi fan ci oto même bu ñu leen gis aussi mën nañu ñàkk seen bakkan mais ak lépp ni ñu demee woon ñu feeñee noonu mais ay am yu manqué si ñoom tamit loolu moo si xaw a luus. bon xam nga Sénégal dañuy wax naan bu élection yi di ñëw ay sacrifice day am am na yu bari yu ñuy wax mais comme kenn du xam. ndax preuve amul li ñuy wax yëpp ay xalaat rek la mais li wóor te wóor mooy man li ma jàpp xale yi moom seen oto bi bi ñu nekk dugaluñu fa seen bopp. parce que du oto bu ndaw euh, porte yi tëju na woon euh, mënoo dugg si oto pare daal di bâché bopp loolu loolu si xel yëngu ma na donc ba tax na jàpp naa ne daal euh, dañ leen faa dugal bâché oto bi pour que kenn du suspecte que xale yaa ngi si biir heureusement bon par la suite. kenn si xale yi def ay bruit di def ay bruit ba euh, yeneen xale yi dégg ko donc ñoom it noonu lañ demee wooy secours xam nga ñu ñëw toj oto bi génn gis leen euh, mais goo ma ne dugal nañ seen bopp mais nag xamuñu yoon daka mën a déterminer ba xam looloo am wala ñoom ñoo fa dugal seen bopp. pour man juróomi fan xale mënu ñeent fan rek xale mënu ko réer te jëluñu moyens yi ñu am yëpp yëpp yëpp yëpp daal di koy jël teg ko si disposition bi pour ñu mën a trouver xale yooyu man daal loolu laa jàpp quoi. waaw ñu ngi leen di sant bu baax. maam ñu ngi leen nuyu. maa lan nga ci xale man maay seen maam seen maam bi gis seen yaay moo topp sama gannaaw. Hmm. noo yëgee xew-xew bi gannaaw say sët lañu mu nekk lu metti lool. naqari ma lool wax dëgg yàlla dëkkandoo yeeg am na jàmm yëpp kenn toogul fu waay nekk rek dugg nga foo fu waay nekk rek wër nga ba sonn fu ne dugg nañ fa ñeenti fan yàlla ñuy wër juróomeelu fan ba lañ koy doog a gis damaa yaakaar ne nag xale yu ne ci oto juróomi fan ak seen bakkan yaakaaruma nekkoon nañ foofu juróomi fan yëpp dara wóoruma ci nag sama xalaat laay wax dama yaakaar ne keroog bi feeñee bis boobu dama yaakaar ne bis boobu lañ dugal xale yi ci oto bi yaakaar nag laay waxee waaw kenn leen nag ji ñu ma kenn dara waaye nag am naa jaaxle lool de metti na torop xale yi ndaw ko am ñeenti at ñu jël ko attan koo xool toj boppam ñuy wax ñu dindi ay bëtam métti na sama xol tooy nag sax mënatuma wax ki ci des ñu dagg tànkam su seen yére benn yére fekk ñu ko ci ñoom loolu doy na waar dugal la ci oto tëj oto bi jël baas muuraat oto bi tëj weer yi doy na waar trop waaw yàlla. parce que mu mel ni ñoom bu ñu dawoon dugg ci oto bi sax baas benn côté bi nañ gis mu yëkkati ko wala dara ñoo xam ne dañu foo daw dugg ci. ni ñu ko gis waaye nag oto bi dara yëkkati ko dañ koo baas tëj bunt yi tëj lépp ba weer yi tëj weer yi. xale yi nekk ci biir oto bi loolu est-ce que nit mën na faa dund juróomi fan yaakaaruma ko sama yaakaar nag laay waxee dama yaakaar ko fa am ñaari fan ci xale rek mbaa nga yenn fa rek dee na bis bi ñu ko gisee ba doon loolu kon ba tey dinañ ko teel a gis xale bi nga xam ne moo fëgg ba ñu yëg ko ba ñu ubbi ko su doon ni keroog ba ñu réer lañ fa duggoon kon ba tey seen kàttan dañ mën a yuux ba nañu dégg leen waaye am fa juróomi fan maanaam kàttan ku ñu la fëggee nii yaakaaruma xale am na fa juróoñ fan ci oto bi waaw lus na trop lëndëm na. ñaan ci yàlla ak yonent bi seexul xadim nag ak barke seex bi dafa al turandoom sama yàlla nit lii ba leer naññ lu lay ñaan yàlla di ko ñaan di ñaan yëpp ngeen ñaanal ma ko yàlla feeñal ki ko def jërëjëf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf maa ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf seen taxawaay rafet na. maam ñu ngi lay masawu li ñu bokk. wallaay maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm. noo yëgee xew-xew bi dal ci seen xanaa metti lool metti lool rek metti lool metti lool wax dëgg yàlla metti sax suñu sët bi dañ koo bëgg lool suñu sët bi bëgg ñu koy bége mu ñuy bégal ñu bëgg ko lool nag yàlla def ci lii ah ñu ngi ñaan nag yàlla ki ko def bu fekkee dañ koo def ki ko def yàlla na ko yàlla weer ci barke Seydina Mohamed ndax lii metti na lool metti na lool ndax yor sa njawoot boo sañoon ñi màgg ba tenir la la nga lewoon ci ñoom ñi la nga leen lewaloon yëpp ñu fay la ko waaye lii kaay xale bii réer leen mercredi lañu reer soddi 6 heures lañu génn ci kër gi gisuñu leen di leen wër di leen wër ba timis jot gisuñu leen waa dëkk bi yëpp génn di lañ ko wër le ñëpp génn dañu ko wër le ñu wër di wër ba sonn ba lundi heure yi tembe ñu woo ñu dégg yuuxu yi ñu génn ñu ne xale yaa ngi nii ci oto bi kii dee kii indi bakkan kii dee kii indi bakkan xam nga loolu ñaaw na metti na te ñoom ñaan nag ñu nekk doomu nijaay ak doom bàjjan metti lool ci man mi nekk ak ñoom metti lool ci man ndax dañ ma daan dar toog fii kii toog fii su ma demee bëgg sama xol bi dina metti <laughs> dina metti dina ma naqari lool waaye kii ma def jëf ji maa ngi ko booleeg yàlla yàlla na ma yàlla yàlla na ko yàlla weer ci barke Seydina Muhammad tooñ gii ma tooñ yàlla nañu yàlla atte ci barke Seydina Muhammad laa koy ñaan metti na ma lool tiisu na ma lool waaye nag yéen bi nag dama ko yénewul man kenn waa Kër Mbay Fall ñëpp ma ci jàppale ñëpp ma ci tëre dëkkandoo yëpp ci jàpp balaa mbokk yee ñëw dëkkandoo yëpp jàpp nañ sonn ma ci jaaxlew ma ji mënumaa jooy ndax lu ma jooy dëkkandoo yi nañ ko lu ma wax dëkkandoo yi wax nañ maa ngi ñaan nag ki ko def lii rek ki def lii jëf ki def jëf ji yal na ko yàlla weer ci kattanu yàlla ak Seydina Muhammad loolu rek laa ñaan xanaa lu metti rek lu metti lu tiis lu metti loo xam ne mënuñu ko wax sax suñu xol naqari na tooy na xeeb xeeb xeeb xeeb ndax kii de xaw ma ko mu mën a doon waaye yàlla na ko musibam yàlla topp kii def lii yàlla na ko musibam yàlla topp ndax def na lu metti lu tiis ndax suñu sët bii xale bu ndaw deful waxul yaayam amul ak kenn xaar ma yàlla papaam amul ak xaar ma yàlla kenn nit néeg yow suñu sët bi di koy def lu metti lii ah bàyyi nañ ko yàlla yente bi sëriñ maam Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom lañ tudde xale bi yow maam en tant que maam danga nga jàpp ne juróomi fan yi xale yi réer yëpp ñu fekk leen ci oto kenn ki ñàkk bakkanam dañu réer rek de naturellement wala yéen fa am loo njort. man de njortu naa ni man sama njort xale yi nekkuñu juróomi fan ci oto juróomi fan amañu ko ci oto moom kay dañoo sonal xale yi ma xale yi son ah ñu ne nañ ko dugal jekkali leen ñu dee ci ba nëpp ndax bu ñu nëbee xañ na kenn du leen xam man loolu laa yaakaar rek sama xel daal lool la ma may na ma lool. yàlla xam na ko yonent bi te leer na ma li may doon doon jigéen doon maami xale boo ko jur yaayam su ma gisoon kii kay def <tsk> dina ma reyaale boole ma ñoom ndax xale bi dafa nekk ku taq ci suñu xol ku taq ci suñu xol ku yërëm yaayam li muy doon doon kon ku yërëm yaayam la ndax yaayam tumuraanke na sonn na waaye ba waxee mu ne man damaa bëgg a màgg ba defaral sama yaay kër kon tey ku ko xañ lii <tsk> yàlla na la musibam yàlla topp te du la wàcc mukk ba bàmmeel yàlla bu mu la wàcc yàlla mu wàcc wàcc say famille yàlla bu ko musibam yàlla wàcc yàlla bu mu wàcc famem ndax daf ñoo toroxal daf ñoo sonal ndax lii ma def suñu sët bi dafa ñaaw lool metti lool ndax rey nit ba pare nu bu xeet ay bëtam dindi ko lu ko gën a ñaaw amul lu ko gën a bon amul lu ko gën a salte amul kii dama yaakaar ni ki def lii du julit te yarul njaboot ndax ku yarul njaboot di nga xalaat leneen ak leneen kuy rey doomi jàmbur ku wàcc sa doom ku xam ne doom ne mu neexee ak doom ne mel nga jël sa doom ni ko tegg def lu metti doomi jàmbur loolu du wàllu julli du wàllu gor waaye kii damay ñaan yàlla yàlla na ko musibaam yàlla bu dee man ab seex laa te doomu yoon yàlla suñu borom xale bi nga ko maam na ko topp te ko wàcc faw ba ci bàmmeelam ba ci bàmmeelam man loolu laa ñaan ndax daf maa ko yàlla nag mënuñu ci jeex tàkk nag laay waxee may wax xol bu wow koong laa koy waxee yàlla na ko musibaam yàlla topp doom la maa yaa bokk ndey ak baay yaa moo topp si man Touba laay sëy ke wala yaa moo ma ne ma xale bi dafa réer ñu am lu ñu métti ba dañuy wër fu nañu dugg fa sërëb bu ñu xam dem nañ fa ñu toog bu bakki dem woo ma xale bi fekk nañ ko ci oto ñu génn ay bëtam ki ci def dagg ki ci def ñu dagg tànkam ñoom ñëpp samay rak ki sama doom rak la ko góor ki ki jigéen doom rak la ñoom ñëpp maa maa ñoo bokk benn ndey suñu yaay ay seex lañ man de bi jaaxal na ma trop parce que ñeenti fan man mii di ndeyam sax ku ma tegoon ñeenti fan ma dee te lekku ma naanu ma ñeenti fan xale yi mënuñu ko nekk oto bi xale yi dañ leen yóbbu jël si li ñu soxla ba pare indiwaat leen mais ki def lii tooñ nañ tooñ na ndeyam ndax ndeyam daa néew doole borom këram néew doole susu ci kenn sonn wérul fu na mu dem fa ñu di ëlbati quoi tegaat natt bi ci kawam ku ne méttiwul rek dalaa dalul ki koy def nag yàlla na yàlla leeral lépp yàlla na feeñ ci jëm Cheikh Rafal te ki def lii dina xam ne ñun ay doomu yoon lañ te lu ñu ñaan day dal ki def lii dina weeru ñëpp di ko yëg dina weeru de parce que lii dafa ñaaw torop la ñaaw ñaaw na torop torop la ñaaw fu na dugg nañ fa sunu mbokk yëpp a ngi nii fu ne dugg nañ fu ne wër nañ fa fu ne dem nañ fa morobu def na jëf ju ñaaw ji jël doom jàmbur yi xam ne yaam daa man ci moom yaakaar def ko nii mais yàlla na ko yàlla weer ci bàkk Sëriñ Tuuba sunu xol yi nag tàng na neexut mënumaa wax na sama xol bi daa naqari voilà mu ngi noonu mbokk téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ne moo xew fii si kër Mbaye Fall mu nekk xew-xew bu métti boo xamante ne ni ñaar ñooñu nga xamante ne ay cousin la ñu ñoom ñaar ñëpp ñooñu Cheikh Ibra Fall ak Dia ñoom ñaari xale yi nga xamante ñeenti at jàpp juróom la ñu am réeroon nag seen ay mbokk lu mat euh, ñeenti fan jàpp juróom waaye si juróomeel bi nag la ñu gis ne moom kenn si ñoom xale yi dafa ñàkk bakkanam bi si bi ñu leen ko wanee ba pare dañ ko bâche xale yi ñu fekk leen si biir ndax kenn ki moo def biir yu ba waa koñ bi dégg ko gannaaw ñoom bi ñu wëree lu mat ñeenti fan xamuñu seen doom si lu mu nekk mu nekk loo xamante ne lu metti loolal lu si manti am lool lool keneen ki ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam ba peut-être moom mu mën a na juróomi at mu doon loo ne doy waar lool lu si mënti am rek bi parce que ay xale yu réer lu mat juróomi fan si koñ ñu réeree fa la ñu nekk ak fa la ñu nekkoon lu mat juróomi fan loolu jiixi jaax ay mbokkam parce que nee ñu mënuñu nekk si hôpital bi mënuñu nekk si oto bi lu mat juróomi fan yooyu ba nga xamante ne am nañu doole mënuñu yuuxu ñu dégg la ñu dem ba nga xamante ne amatuñu doole ñuy fëgg bañ leen di dégg loolu moom moo seen bopp ak ni ñu fekke xale yi fekkewuñ leen ñu sol ay yére fekk kii ñu dindi ay bëtam dagg tànkam mu nekk loo xamante ne lu doy waar lool la lu ci mënti am yoon mu ngi def liggéeyam émission xew-xew daf koy topp 7 ba ñu am si lu leer naññ naññ naññ nañ massaw yaayam bu baax a baax ndax metti na nga ñàkk sa doom bu góor dafa metti kon ñu ngi leen massaw di jaajëfal ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu àndoon si émission bi murit mi nga xam ne di jaay la si ñoom ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal mbenn taalibe Sëriñ Abdou Karim Mbacké mi nga xam ne Bambey ñoom ñëpp rendez-vous incha allah mardi lay doon à 13h30 si beneen xew-xew ci biir 7TV télé ñu nuru ba noppi ñu dajale jërë ngeen